at yi nga amuñu suñu tàng yëpp fi la nekk moo doon tàkk ñu ko doon sauvé parce que yéex yéex nañoo gis ku ñu wàllu yéex nañ ko gis yéex ñoo gis fii lépp waaw suñu place la défenseur suñu kër suñu teraanga yëpp fii la nekk Babacar Babacar tey lépp moom la lépp moom la nit ku baax la moom moo ñu tax ñu jaay suñu bakkan pour lii nii pour lii parce que lépp lu ñu am fii lañ ko amee mais dëkk bi jàmm lañ fiy ñaan ni laay war a soli bu mën a dëkk bi mën a am jàmm ñi ngi wax oh, oh, kilifa diine yi nañ ñaan ci lii ndax lii ñaaw na lii lii lii oto yi tàkk saa yi tàkk lépp tàkk nii nekk loo xamante ni si rafet na yàq suñu liggéey rafetul ñun jàmm la ñuy ñaan ci réew mi bu fekkente ne mën nañ ko am ñu ñaan ci balaa lii di jëm kanam bi miir bi ni xaw ñu ngi lépp li ñu biisi bi ñi tàkk suñu kanam la lépp suñu kanam la nekk mais jàmm daal la ñuy ñaan ndax ñun amuñu lu dul Sénégal Sénégal lañ am te kenn ñu ko yàqal waaw. waaw métti na mais on a géré dinañ ko géré liñ koy géré mi ngi nii ñu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay divorcé képp ku fi nekk ñoo bokk ndey amuñu xaj ak seen képp koo xamante ne am nga naqar ñun ñëpp dañuy jóg taxaw ñun ñëpp dañuy jóg taxaw ñun Sénégal la quoi Sénégal voilà wasalaam. Sarr man dafa am lu ma bëgg wax loo xam ne loo xam ne mënul cest à affaire yi donte jàmm lañuy ñuy woote waaye dafa am loo xam ne si bu fa mbiree donc mu jàmm mënatul am. parce que président Macky Sall wala kon Macky Sall dictateur bu bu mag bi donc mënul nekk si dëkk bi tere ni ñu wax tere ni ñu joxe seen xalaat si réew mi tere ni ñu poser ay questions loolu mënul nekk si ban réew la ñu nekk. gars yi nag ñoom ñoo ko def en patriote yi ñu ci bëri ñoom ñoo ko def parce que démb laa na leen waruñu woon nangu gars yi di taxaw buntu kër pro nga xam ne amuñu du mën a am accès dem ci boutique bi loolu waruñu ko woon seetaan donc dafa nekk ay mbir yoo xam ne si lu ñu war a luñu lu ñu war a lijjanti la comprendre nga man nee woon naa bu bu ñu xëyee dañ naan ko cas teg ko seen i oto yóbbu ko fu leen neex léegi lool loolu la ñu wur woon seetaan donc Macky sal moom na xam na bés dina ñëw dina dugg si biir suuf si sax yi lekk ko munu si dara mu nekko ko ak mu naqari ko pro pro amul lenn lu mu ko def su lu bon wala su lu ñaaw da koo gën a bëgg réew mi gën ko xam droit gën ko xam respect gën ko bëgg doomu aadama gën ko nekk jullit gën ko nekk wàll yu xàqan Macky Sall dictateur bu bon la mais mais léegi loolu boo ko bëggee comparer par rapport ak sàcc yi ñuy sàcc suñuy milliards ces bus ne représentent absolument rien moi je suis membre de la mafia kàcc-kàcc dugaguñu ci xeex bi ñu naa depuis suba si ba léegi dañuy wër di xool di observer mais fii ak ngoon incha allah ñu ngi déglu suñuy avocat ak suñu président son excellence Ousmane Sonko ñu ngi koy déglu ci biir incha allah lu ko génn tey Macky Sall du fanaan ci biir palais bi ñun ñoo ko wax ñoo te nga xamante ni moom la wax ne bus yi boo ko comparé boo boo comparé benn bus par rapport ak Macky Sall lu muy sacc Mame Mbaye Mame Mbaye Niang vingt neuf milliards la sàcc au plus de trente milliards yaa may dégg les Farba Ngom c' des hommes yi nga xamante ni ils ont des milliards te dañ ko sàcc bu ñu taalee benn putain de bus boo xamante ni moom njëriñuñu ñoom ñooy détourné ndey xaalis bi yes ñoom ñooy détourné xaalis bi mais euh, mais of awa jàpp laa la wax xam nga lu tax parce que mënuñu nangu ñoom bus yi nga xamante ni dañuy wax ne ñun suñu bus la ñoom seen directeur yi fay nekk ñoom ñooy jël bus yi sàcc détourné xaalis bi et ñun lan lañ ciy gagné mais rien du tout bu pouvez imaginer depuis 1960 on a notre indépendance yaa may dégg et les populations sénégalaises la population écoutez écoutez s'il vous plaît la population sénégalaise depuis 1960 ñu ngi dund souffrance ci benn band con boo xamante ni ñoom seen biir ñoom ñooy jël suñu alal di ko sàcc suñu éducation dafa am problème santé dafa am problème lépp am problème ah sunu panier ménagère dafa am problème Macky Sall nee na duñ ko wax ci ki nga xamante ni moom la ñu yaakaar am ci moom espoir ne bu faloo incha allah dinañ dundee sunu alalu réew ñu jàpp ko bu ko neewal doole ah. ah ok.